العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen topp tabarakallahu taan wi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax te di leen ziyaara di leen baalu xaq ci weeru mag bi te di leen baal di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu baal ñu ñaan yàlla mu nangul suñu koor nangul ñu mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne def nañ ko ci biir weeru koor gi ñu ñaan yàlla borom bi yàlla bu mu doon suñu mujj weer yàlla ko fekkaat yu bare bare ci daraja yi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu nag ñu ngi ci catal weer bi yàlla borom bi subhanahu wa taala dafa waxoon ne weeru koor day weeru ngëneel la waaye ayaamun maadudaat la ay fan yu ñu lim la bëriwul waaw ba tax mu ne képp koo xam ne yàlla dogal na nga fekkee weer wi na nga góorgóorlu waaye na nga ko woor waaw na nga ko woor yàlla na doon nañu woor di woor tey tabaarakallaahu bañ naan léegi mu jeex fan yu mujj yi nag daam yu rëy rëy yu ci xew yu ci am ba yàlla wàcce ci aw saar yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam suñu yaay Aïcha nee na daan na góorgóorlu ci weeru koor ndax li daan def yëpp ci lu baax weeru koor bu ñëwee da daan yokk waaye weeru koor yi fan yu mujj yi fukki fan yu mujj yi mu masaan ñëw lam daan def ci biir weeru da koy yokk ba tax sallallahu wa sallam ne leelatul xadar day mi ngi ci weeru koor waaye mi ci fan yi nga xam ne mooy fan yu mujj muy bis bu boobu li tax ñeneen ñu sallallahu alayhi wa sallam dafa doon jàng histoire benn waaye waa joo xam ne dafa dund junniy weer junniy weer la dund di ko jaamu yàlla bëccëg yi guddi mu koy naafi la di jihaat ci yoonu yàlla kooku yéem yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yonent yàlla Muhammad bul yëngu dinaa la jox guddi goo xam ne genn guddi goo xam ne boo ci jaamoo yàlla day tolloog dundu mu wàcce saar wi inna anzalnaahu fi laylatul qadr wa maa adraaka maa laylatul qadr ne laylatul qadri xayrun min alfi shahrin tanazzalul malaaikatu bi izni rabbihim min kulli Muhammad guddi googu day laylatul qadr Muhammad dinaa la jox génn guddi goo xam ne jaamu ca yàlla day tolloo nga jaamu yàlla ci junniy weer junniy weer bu buñ ko doon tënk ci ay at day tolloo 83 ans yu teg 4 mois junniy weer 83 ans yu teg 4 mois lay tolloo nga jaamu yàlla ci guddi googu dafay tolloo junniy weer yàlla ne ko ma joxal la ci beneen faveur boo xam ne day am ci guddi gi mooy tanazulul malaaikatu war ruux malaaka yi dañuy wàcc ba tiim jaam yi nga xam ne ñi ngi taxawal guddi googu di ko jaam yàlla waaye duñ te yem dañuy ànd ak jibril mi nga xam ne mooy seen chef ndax jibril moom lañu ñu tuddee aminul wahyi moom mooy ki nga xam ne moom la yàlla daan yónni ci yonent yi aleykum salaam bis boobu nag yàlla du yem ci wàccee malaaka yi kese waaye day wàccee walla jibril mu ànd ak ñoom waaye nag yàlla borom bi ne na mboolem yiw mboolem teraanga mboolem lu baax rek tabaarakallaah malaaka yooyu dañ koy wàcce walla ci guddi googu waaye dañuy wàcce walla jàmm ñu tuddee guddi gi nag laylatul xadar guddig dogal gi yàlla borom bi wax na ci alxuraan ne fiihaa yufraxu kullu amrin xakim mboolem mbir yi nga xam ne ala kulli xaal moo war a jëm diwoon ci guddi gii dañ koy programme ñu war a gudd fan ñu war a am wërsëg ñu war faatu ci at mi lépp rek ci guddi gi lañ koy tabaarakallaahu dogal kon ko ci guddi gi lañ koy dogal nag yàlla bëgg yow mi nga xam ne yaay jàmm bi wóor la ndax di nga fekkee déwén wala doo ko fekkee yalla borom bi subhaanahu wa taala nee na góorgóorlu ci guddi gi nga jaamu ci yàlla boo ci jaamoo yàlla màggal ko guddi gi nga màggal ko ci ay azkar ci ay salawaat loo ci mën def ci lu baax rek ala kulli dafa dafay tolloo nga jaamu yàlla ci junniy weer kon nga góorgóorlu ci waaye nag mbokk mi suñu yaay Aïcha radiyallahu anha laajoon na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa Muhammad waaw man bu ma dundee. ba fekkee bisub laylatul xadar lan laa ca war a def ak lan laa ca war a wax bokk yonent yàlla Muhammad jox ko genn ñaan gu gàtt gu làmboo ay njëriñ bu gàtt lool waaye làmboo njëriñu àdduna ak àllaaxira lu ko wax ne ko boo fekkee yow Aïcha na nga fexe ba wi nañ ci tooyal baat yi allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni muy ñaan gu gàtt lool waaye bëri njëriñ lool am na benn riwaaya bu jëm allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni li mu tekk mooy lan allahumma yow yàlla innaka yow mi may wax ak de afuwun jéggalaakoon nga kon nga xam ne ne yàlla borom bi subhanahu wa taala mooy jéggalaakoon bi waaye tuhibbul afwa yow yàlla bëgg nga jéggale yow da ngay bëgg nga muy jéggale kon maa lay ñaan faafu an ni yàlla ma jéggal te yàlla borom bi mbokk yi bu la jéggalee sa àdduna baax sa a baax ndax loo fi mën a am ak noo mën a toll te amoon njéggalu borom taala daanaka ba yowmal qiyaama boo fa demee da ngay perte tabaarakallaahu bu ko defee leelatu xadar am na ay wuute am na ay wuute moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne leelatu xadar ci fakki fakki fan yu mujj yi ci weeru koor ci lay waaye bu ngeen koy seet ci fukki fan yu mujj yi na ngeen ko seet ci fan yu tóol ya maanaam ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki fan ak ñett ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent boroom xam-xam yi nag wuute ndax diina ji ala kulli xaal wuute daf cee bari lool am na ci ñoo xam ne fi ñu koy tënk mooy bis bi nga xam ne ci la koor gi tàmbali ci la ñu tënk tabaarakallahu la taxadar ñoom xam fan la tabaarakallah bis ba toll bu tàmbalee altine ñu ne bis sàngam la kon de day ñaar fukki fan ak juróom-benn wala mu nekk ñaar fukki bu fekkee altine talaata la tàmbali noonu lañ ko toppee ba semaine bi jeex bis bu mu tàmbalee rek ñu ne kon bis bi la leen waaye ñi nga xam ne dañ ko jàpp ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bëri na lool ñu ko ca jàpp wuute bi nag daanaka Sénégal la waaye boo demee ci monde arabe dañ ne ñoom anniversaire du tuxu anniversaire du tuxu. moo tax ñoom dañ ne ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la fu ñu ko teg ku ñuy wax ubay ibnu kaab ak abdullah ibnu abbas ñoom ñaar ñoo wax ne ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la laylatul xadar boo demee ci suratul xadar xaasitu saawi mooy jalaale ni ba ñuy firi la eh, suratul xadar wax jii boo demee ci sarxa ba da nga ko ci ñaari wax yëpp da nga ko ci fekk waaye moom dafa toog waat moom way ne maa ngi waat ne laylatul xadar ci weeru koor la ne waaye tegaat teewu ne maa ngi waar ne ci fukki fan yu mujj yi la maa ngi waat ne moom laylatul qadar ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ah bu toog di waat te saxaabu bu baax loolu xam li ci waat kon li muy waat ñu dëgg la ñoom foofu lañ ko jàpp abdullah ibnu abbas tamit radiallahu anha bokk ci ñi nga xam ne tabarakallahu dañoo jàpp ne laylatul ñaar fukki fan la ak ñoom abdullah ibnu abbas dem na ci sax ci xam-xam ne boo xoolee saar wi nga xam ne mooy suratul xadar leelatul xadar ñetti yoon la fa ñëw te leelatul xadar boo kootee xaraf yi lettres yi da lay def juróom-ñeenti lettres leelatul xadar juróom-ñeenti lettres la neuf fois trois mu jox la vingt sept kon mu ne guddi vingt sept mooy leelatul xadar tabaarakallah waaye wuuteeg borom xam-xam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na wala yërmande la yërmande la ku ci nekk fa ko jàpp daal di ko fa defee yal na yàlla nangol la parce que yaakaar jublu nga ne fii la daal di ko fa def yal na yàlla nangol la ci barke bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa